asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah vendredi 17 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb tey fa la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki nag sunu làmb moom jàppal Modou Lo ak Eumeu Sène daal la xëy wa nañu ñoom ñaar nag ñu ngay fecc ba wàcc waaye jàppal yëglikaay bi ne day li leer ba leer combat 28 juillet bii day Modou Lo ak Eumeu daal fi mu nekk nii bi nga xam ne moo yor sport Ba yëglikaay bi ne day combat boobu comme promoteur ba ne ne moo tax nag ñu ne ñaar ñii la ñuy déglu ndax promoteur ba moom la mu jàpp ne daal combat ba xajul arène nationale combat bi xaj arène nationale moom ba ñu jàpp dat ba war ko faa bëri mooy digg te Gris ak Reug Reug yëglekaay bi di sunu làmb nag tey Tapha Gueye la seqal ay wax Tapha Gueye moom la mu xamle nee na mbërëm mii nga xam ne nii day moo di Gris 2 te sunu làmb tuddee ko éléphant noir maanaam ñay wu ñuul wa yëglekaay bi nee na day jàppal wala tafaa Gueye nee na jàppal Reug Reug na ko leer na day Gris na koy koñe gañe ko daan ko demu yoonam dafaa gii daal loolu la xëy tey di wax mu mel ni ki daal mu ngay ràcc jëmale si kanamam nee na daal rëg-rëg moom moo la gën a xam loolu moom daal bu ñu ca yeggee na ko leer ne day na na taxaw rek xaar loo ci mën a dégg daal dina gis loo xam ne day dana ko jaaxal de ñu ne ko waa léegi Elton nag ni mu ko defoon mu ne Elton d'accord loola Elton la waaye kii moom gridé la ñu ne ko gridé po am bi mu wàññi mu ne loolu xëy na bés boo ko laaj rek wala day liggéey liggéey daal lay def waaw parce que nag liggéey moom bu dëggoo rek wala mu nga ne ca faaw mu feeñ ci yow dafa géey tey moo xëy tey ci yëglikaay bi di sunu làmb ngar daaju fa di fa wax kañ ne woon démb moom dafa jàppal kii en muy assise Cheikh Sow moo ne woon ko day da nga maa jàppal en assise nag daa mel ni tontu la foroxul de tontu na ko ba mu saf nee na ko jàppal dama laa jàppal en loo ci mën a dégg dimanche moom ak foo mën a jaar goo mën a def moom di nga bàyyi roog énergie ci nii wala ci naa des na la wàcce de banque bi moom di nga ko pousse joxe keneen mu toog mel ni banque booba muy xëccoo nag moo xaadim nga jaga yëglikaay bi di sunu làmb day ci xalima ak ñaa nee na li leer ba leer day daa mel ni ki nag ginnaaw ay jàmm consensus daal la ko tudde waxtaan bu déggoo ki leer na daal naa ñu fi nekk nii de daa mel ni daal fa ñu mujjee day Cheikh Sow Xaadim Gajaga waxtaan am na seen biir boo sàggane day Xaadim bu ñu demee dimanche ca AG ba mooy jiite ji lii nga xam ne moo di Rock Énergie sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ca leewtoo point net jàppal mooy loo xam ne nii mooy Ibou Ndiaye ñoxo baay microcentral làmb moom nag mu nga xëy tey di ñëw mbër yi lay waxal nee na leen mbër du def bëree kese métier mbër day am métier ñu ne ko lu tax nga wax lool mu ne li tax ma wax ko musaa Diame mbër la fi woon nekkub sapeur pompier te des na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne day ay mbër la ñu woon te dañoo amul seenu métier di ko topp kon mbër yi nañu ci métier ñu ne ko Ama mii nga xam ne doomi Pikine la ne balance mu ne jàpp li ko ko yóbbee du ñeen ñu dul ay entourage am ñu ko wër wala moom ci boppam ndax ne na nag mënoon naa jël Siteu jàmmaarloo ak moom ndax mbër moom bu ngeen tolloo taxawaay te mu ñime la jël ko nga bëri ak moom loolu mooy ay waxam waaye ba tey ci Leewtoo point net rek Iba Senghor numéro 2 moom mu ngi fay wax mu ngay leeral diggante ak Serigne Ndiaye nee na bëri nañ six ma daan ko quatre mu daan ma ñaar waaye am na ñeen ñoo xam ne teg na leen bët moom Iba Senghor numéro 2 ka jëkk mooy Malick Niang nee na ñoom dañoo war a ñëw ñu bëre parce que nag defuñu fi lu ma fi deful moom daal classe nañu ko neex jàpp ne daal ay ragal la leen jàppe nañu ñëw ñu bëre te bàyyi làqu-làqu bu bëri bi nga xam ne ku ne yaa ngi ay porox ndoll yooyu jaar nee na man Iba Senghor damaa wane sama bopp bu baax a baax a baax kii moom fa mu wane boppam maanaam moom santaa ñing santa daal ñaareel la takk waaw loolu Leewtoo point net lañu ko jëlee waaye bu nu demoon fa nga xam ne nag moo di ca Lutte TV Lac de Guiers numéro deux moom mu ngay diggu Boy Niang nee na ko na leer de bu ma ko jàppee dinaa ko dóora dóora dóora dóor ba su ma ko bàyyee dina xam ne yàlla julli dong la santub jullit dinaa ko duma duma yu metti daan ko jëlli bu rëy Lac de Guiers numéro deux moo xëy foofa di fa wax wax ju mel noonu leneen loo xam ne tamit dañ fay dellu siwaat muy sunu làmb nag jàppal hôtel Dior numéro deux waaw moom day yëglikaay bi nee jàppal Adrien Senghor day boo xoolee ren day lëm fa jël xaw naa takku lool ci ab xaalis un million deux cent daal jot na ko faa jël ci ay final yoo xam ne def na ko fa mu toll ci ñeent sunu làmb nu ko wax leneen loo xam ne tamit danga koy gis wala ay xale yoo xam ne moom wala xale buy reefe kii nga xam ne mooy loo sóot moom day nee na la mooy reefe daal mooy Modou Anta bëgg a dajeel wala kii nga xam ne moo di wulli bu bawal loo sóot bu yaraax moo xëy di wax loolu ab combat buñ taxawal laadum wala boog combat laadum ba ak dañ caa dugal beneen combat Cheikh Tidiane Niang ak kii nga xam ne moo di capitaine moom lañ ca renforcer yokk ko ca dafa mbër moom xëy na di laaj ña laaj nag nee na moom pare na ngir maa law seeraas wala ngir naa lu soogaas lii la Tapha Mbeur xëy tey di ko wax waaye li leer ba leer day Santa Gningue ci Leewtoo point net fa lañ waxe ne takk na ab ñaareel taala njaay waaye man sama caay ji ma fi soloon ñu di ko soow am ku ne woon da koy ngénte muy tuuti yaay saar buñ ko rete ba pare caay yi ñëwaat na tey ci àjjuma ji caaya jaa ngi nii mu xëy sol ko caayaay wiise ja taala njaay nu la neex nga ciy doxe fu la neex aw ci caaya noppale la def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 di wax nag buur bi moom njéggal ak lépp yàlla na jéggal ñëpp moo xam ku tëdd ci suuf laak ñi ñun ñi nekk ci uh, waanam ñun ni nekk ci àddina bi di dund yàlla na yàlla baal ñëpp daal te defal ñu jàmm nangul ñu suñu koor barke yonente bi sallallahu alayhi wa ñu jublu si waxtaan bi dugg ci li nga xam ne ni moom la sunu lamb tey andi à la une muy combat Modou Lo ak euh, Eumeu Sène bi war a am le 28 juillet mais ñoom seen problème fu mu toll nii mooy disponibilité Léopold Senghor ba tax na ñuy déglu ministre boobu ba léegi amaguñ ci lu leer parce que bu jàpp nañ ni combat bi foofu la xaj Babacar. waaw promoteur bi de Moustapha Diop moom moo ne combat bi daal Léopold la la koy la koy yóbbu boo xoolee premier jàkkaarloo ba question boobu sax yaakaar naa man maa ko ne combat bi arène nationale xaju fa Léopold la koy yóbbu ah léegi nag bu ko waree yóbbu Léopold moom il faut ministre bi joxe ndigal kon ministre bi nag comme joxeegul ndigal ah li ñu a def mooy déglu ko rek waaye man daal li ma xam ba xam ko mooy man jàpp naa ne man Babacar pour man combat boobu sax na Léopold na ah. eh, ba toll ni wala mu pour Demba Diop est-ce que pour Demba Diop sax ay place kon yaakaar naa foofu amul combat bu mu bu mu àttanul yaa ngi dégg kon nag mais nag moom moo moo tëgg làmbam moom mooy xool fi mu jàpp ne bu ko fa tëggee mu mu sotti parce que c'est le promoteur dañ ko koy nangul moo def xaalisam ah kon nañ toog xaar ministre bi ba xam ndax dana valide Léopold pour ñu tëgg fa combat bi xaw a xam ndax arène nationale lañ la ñuy la ñuy wax mais loo ci mënti dégg daal combat boo xam ne nii moom date bi ñëw la parce que soreetul le 28 juillet incha allahu rabbi yàlla nañ ko fekkati tal ko ñun daal nañu ko tëgg daal li ñuy ñaan daal mooy na am ren waaw loolu daal la ñuy ñaan na am ren waaw waaw. waaw Babacar loolu ñëpp di ñaan te jot nañu dina am ren incha allah jóge fa dem si rëg-rëg ak Gris 2 kii di Tafa Gueye ñëw moom it xalamal ki nga xam ne nii mooy poulain am muy Gris 2 jàpp ni bu jour baa moom dina attaqué dina koñe dina gagné parce que ak ñi mu ko doon def Gris du mbër yooyu noonu Babacar. waaw Tapha Gueye c'est le directeur technique lem la yor waaw comme ni ko Pala Diop waxee woon fan yii rek neen na fi moom mbërëm day bëriloo Gris 2 ba mu xoox mu door koo daan comme ni mu defoon Elton xam naa moo tax tey Tapha Gueye xëy di tontu xam na ne moom mbërëm du mbër yooyu yaa ngi dégg ndax moom li mu gëm mooy mbërëm moom day koñe attaqué gagné. yaa ngi dégg loolu la wax loolu nag mooy li ma lay wax rek bataille de communication bi day am actuellement ni ku nekk da ngay génn di jéem a sa morom ci biir ay wax mais dañuy naxante ci biir wax ji tamit parce que li ma wax tout le temps rek communication bi ngay gis avant combat bokkul ak bu ñëwee ba ci biir géew réalité ba fay am bokkul ak sa nu ñuy aborder combat yi waaw mais nag ñoom ñëpp ku ci ne Pala Diop yar na yàgg na yor mbër Tapha Guèye moom wax ñuy wax dañ taxaw ndax yaakaar naa ne Mbaye Guèye sarak mooy sa mag di loolu doy na ñu ne déet ne waay mu bàyyi bëre nga jël place am bëre bañ ne est-ce que ku mel ni yow ci bëre amati na kon defe naa ne kon nit nu ko mën a xam bëre tey nga ñëwaat ñu ne la directeur technique nga yor ay xale defe naa ne moom kuy wax bëre rek ba ñu ci tafaagi ngay dëpp am na moo tax nag nga xam ne daal communication bi moom nañ koy dégg rek ci ñoom ku ne di wax naan lii laay def lii lay def waaye nañ bàyyi ba suur bëre parce que suur moo gën a wóor quoi parce que làmb li ñuy wax rek euh, suñu père Max Mbargane da koy faral di wax danaan bu ñu la séentoo fet fetalal buñ la séentoo fetal fetal waaw boo signalé gauche jàddal droite loolooy làmb <laughs> waaw waaw. ñu dem euh, rek Énergie ak coow li nga xam ne ni amoon na fa ci waajaayu AG bii di ñëw le 19 incha allah. démb Cheikh Sow la woon moo génn wax tey assisé nag génn na tontu ko nee na ko moom ak loo ma mën di waxal jàppal ni moom bu la 19 fetee ba da nga puus keneen toog ci. puus keneen ñëw toog loolu loolu la as xëy wax mel ni ki démb Cheikh Sow dafa jàppoon ne as da jàppale en as nag daa mel ni tey moom xëy na tontu li ma la wax rek tontu du forox nee na ko ak lu mën a xew moo xam ma jàpp wala ma bañ a jàpp da ngay wàcc comme day wàcc nag te 19 le 19 lay wàcc man la ma la waxoon démb rek laa ciy waxaat ah. man Aïssatou damay wax ne que nit ñi lépp bu buñ seqee ay mbir nañ ciy waxtaan. waxtaan ci parce que ay mag lañu ay kilifa lañu ñoom ñëpp war nañu mën a waxtaan ba trouver seen terrain d'entente trouver seen solution xam nañuy jaar ba seen écrit mën a avancer parce que tey pour man amuñu droit ñoom di indi handicapé écrit bi ngir ñoom seen propre intérêt wala seen bopp ñoom kese parce que defe naa intérêt commun mu ëpp doole fuuf intérêt personnel. yaa ngi dégg parce que du Cheikh Sow du Xaadim nga jaga du assise du ñoom ñett képp du ñooy écrit ba écrit ba ay mbër a fa ne mu eng mbër di di ay doomu jàmbur jóge fu nekk ñëw dëkk ci écrit ba ngir yaakaar fa def carrière avancé yegg fu mu loo yegg kon defe naa ñoom li ñu mën a dimbalee booy ya mooy ñoom ñi ay kilifa di ay mag nañu a waxtaan déggoo xool nu ñu def bu seen écrit avancé moo gën wàññalante ay weex-weex bi nii laa defoon nag day yokkub sag nu rek nañu def seen âge trouver seen solution ku ñu jàpp ne mu war a jiite mu jiite muy te loolu moom la ñuy digal ku nekk maanaam werante wu bëri ak yaa ma newal nag maa leen noon ay satu amul njëriñ li am njëriñ li ma jàpp ne daal mooy li gën ñu waxtaan xool ni ñuy defee seen écrit pour mu avancer Sénégal jëm kanam ma mel waxtaan boobu nga doon wax euh, depuis démb ba tey jot na am euh, démb diggante ki nga xam ne ni mooy Cheikh Sow ak euh, Khadim Gadiaga fële ca kër Birame Gningue toog nañ waxtaan nañ ba jàpp ni tey jii Cheikh Sow moom lu mu jàppoon bàyyi na ko pare na pour jël place ba bàyyi ko ki nga xam ne mooy nga Gadiaga comme ça bu jour ba daal formalité rek dañuy def introniser ki nga xam ne mooy nga Gadiaga waaw loolu mooy li ma waaw kon da defe naa day dëggal li ma waxoon sànq rek waxtaan rek ko defe naa li ma la kon jox nañ maanaam moom mate nañ ñu la doon mat nañ tamit ne kay ñoom ay kilifa lañu parce que bu ñu demee kër biram ñu ngi toog fa waxtaan ñoom ñooñu muy xaadim ak Cheikh Sow ba d'accord ci loolu ba Cheikh nar a bàyyi pour dimanche xaadim jàll c'est très normal parce que Cheikh Sow kilifa la mag la xëy na am na loo xam ne atam mayatu ko ko wala taam wala jotam xaadim nga jege macha allah xale la te tamit xëy na jàpp naa ne mën na am profil lu jiite écrit bi yaakaar naa ko dañ ko yaakaar la ñuy la ñuy waxee yaa ngi dégg bu fekkee loolu am na nag moom ñu may ko sens xool ndax moom dina def la raw li Cheikh Sow defoon loolu tamit ah, moom lañ koy souhaité ndax ñun képp kuy yore dara di ko doxal ñu dénk la ko dañ lay ñaanal nga réussir ko yaa ngi dégg kon comme loolu am na ah kon alhamdulilah euh, olof na ne nag ginnaaw jàmm ginnaaw ay jàmm kon dimanche xëy na ñu def seen formalité xaadim ji doxal ñu xool temps bi lu muy wane parce que loolu la ñuy wax si écrit yëpp ah, des fois da nga ay coow ay détails te yooyu jëru ko ñuy waxtaan quoi waaw nee nañu réeroo amul ñàkk waxtaan bu ñu waxtaanee rek dañuy juboo asaay su ne ñu dem ci Ibou Senghor nga euh, fekk ko ca Leewtoo TV Ibou Senghor ñëw ci li nga xam ne ni mooy carrière am frappe simple ah ñëw ci lu yaatu ak euh, li nga xam ne bëgg na ko si simple bi ñu def association ànd xeex seen i intérêt parce que ñoom jàpp na ni bëriw ñu leen euh, xeexal Babacar. waaw parce que parce que problème bi mooy Ibou Senghor loolu mu wax noonu comme ça tey ñoom ñu def seen association. ñuy défendre intérêt leader yi nga xam ne ñooy def simple bi ah loolu am na si droit parce que boo xoolee avec frappe am nañu lu mel noonu dama xamul nag ndax war ndax kuréel gi dafa ëmb ñëpp wala ñoom simple bi dañ cee bokkul parce que comme loolu muy ñaxtu loolu ci côté 1000 francs yi leen di laaj bu ñuy bindoog yooyu yooyu yëpp lu jaral lijjanti la yaa ngi dégg ay adversaire am comme li mu wax nag ci diggante ak simple beeg lutte avec frappe bi loolu moo lay wan ne daal lutte moom Ibou Senghor mbër la bi nga xam ne mbër bu am la ci làmb yaa ngi dégg parce que lit lit lit mu ngi ci wane boppam lit simple bi tamit kazalika naka noonu mu ngi ci wane boppam mu nekk mbër moo nekk bu a doon ñu jeexal ak li ñu fekk euh, ak Lac de Guiers mi nga xam ne mi ngi ci wàccaay moom it di di commencé di Boy Niang 2 nee na ko bu jour baa moom naa la dóor ba nga nooy nepp doog laa daal <laughs> waaw loolu de la ko wax dinaa dóor ba nga nooy nepp foofu ca ca ca Lutte TV ma leen di nuyu encore une fois Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu groupe bi yëpp euh, muy loo xam ne nii li ma la wax rek euh, communication bi di kaat la ma la waxoon sànq rek dinaa la duma ba nga nooy nepp door laa daan ci làmb yàgg nañ koo dégg mais ndax bu arbitre soufflé noonu lay demee loolu mooy question bi diggante Lac ak Boy Niang nag la ma ca waxoon laa ci waxat rek combat kumpa la waaw lu ñu lu ñu dëpp la il faut ñu muri ko xam lu nekk ci biir parce que ñaari mbër yi ñooy bëree noonu Boy Niang li muy def da koy làq Lac de Guiers li muy def da koy làq mais saa yu ñu saa yu ñu répondre rek seen réponse day def effet xaw ma nag ñoom ñaar bu ñu ca yeggee kan mooy njëkk a def kan mooy njëkk a def buum waaw kuy njëkk réagir mais seen réaction moom duma koy bëgg ku ci juum nag bàyyi lu la def lu la loo warul def ba sa morom jëkk la réagir xalaat naa balaa ngay lijjantiku ay jooy am na ci yow te loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais ñaari mbër lañ yoo xam ne daal vraiment duñ ne mbër yi bëree kii amul entraînement wala kii amul doole ñu ñime entraînement ñu am doole macha allah ñu bëgg li ñuy def tamit mais ñu naqaree daan parce que mbër yu naqaree daan lañ ñoom ñaari mbër yooyu waaw waaw Babacar li lañu andiloon ñi nga xam ne ñuy suivre euh, revue de l'arène ci jàngat bi ñu jox rendez-vous lundi incha allah mais balaa boobu dañu nuyu Mame Talla suñu baay faal bi chéri Lebu borom jaxas bi tey foofu la génn ah di nuyu Ousmane euh, ci montage bi célibataire boobu noonu nga xam ne ñëpp la bëgg def morom ñu di nuyu képp ko xam ne rek Babacar yaa ngi bëgg Leewtoo TV mais tamit damay souhaiter joyeux anniversaire sama doom Mouhamed Dieye doomu aw baaba suñu taaw boobu noonu ñu koy wax euh, dundal lu bëree bëri bëri dundal bay teral say am wërsëg boo xam ne ñëpp dinañ ci xaj incha allah. amin yàlla na yàlla nangu ñaan mu yàgg fête anniversaire am boobu moom tamit am na ko xam ne tamit sama jarbaat la mu nga géej waay bébé fa lañ ko wax ne ne day fête anniversaire am tey maa ngi koy ñaanal tamit mu yàgg ko fête ay at te mu ànd ak yokkute xéwal ah di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñëpp fu ñu mën a nekk internautes yi du ñu leen mën a fàtte fu ñu mën a ne ci àddina parce que ñuy ay satu te tout le temps dañuy bëggee xam nga ñoom euh, tuuti yaay Sarr Xariros Mamadou Mamadou Kaolack Diallo xam nga ñoom Assane Sall Mbacke Kebe Ousmane Diop xam nga gaa yëpp fu ñu mën a ne ak Fatma Fall depuis Bergamo Italie moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak waa xam nga waa Dubaay ñoom Gora Seck Afrique du Sud gaa yi fu ñu mën a ne ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Seydou Côte d'Ivoire waa Gambia fàttewuñu kenn parce que ku lay bëggee rek Aysatu dee ko bëggee kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nekka ñu ngi leen xamal daal ne yéen ñu ngi leen di bëggee fu ngeen mën a ne xam nga di leen balu ax di leen baal bàyyi sal depuis Paris du ma ko fàtte mais di fàttaliwaat rek suba ka ni ndogu groupe baax yi bu ñu ko fàtte parce que sës bi la secrétaire général du groupe waaw maa ngi ciy woo ñëpp suba daal mairie Parcelles Assainies lañ koy defee di nuyu président bi Massamba Dieye ñu ne si biir groupe bi xam nga mais tamit di ki nga xam ne ni mooy tonton moom mooy directeur u GFC maa ngi koy di nuy waa GFC waaw di leen ziar bu baax a baax di nuyu tamit alaaji Yande Diop mais borom Ndakaaru ak Amina maa ngi bu baax a baax wala borom waa wala ma ne Sahra rek waaw mais di nuyu nag Ousseynou moo ma solal njaxasu Baye Fall bi wala boog wiise Baye Fall bi caaye jaa ngi nii tuuti <laughs> taala moo sol njaxas bi tuuti yaay Sarr yaa ne woon da nga koy ngénte caaye jaa nii maa ngi denc di la xaar di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm mais Adja Ndella maa ngi bu baax a baax yaay Fall bi <laughs> waaw di leen jox rendez-vous allah.